mbokk yi ci ndigalu alxalif Mawlana Cheikh Ahmad Tijani Cheikh Ibrahim Niass xalif général de la Fayda Tijaniya Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Ibrahim Niass di représentant xalif bi ci Ndakaaru jamciyatu ansaaru diin departement bu Géejawaay ñoo ànd ak mbégte di leen yëgal xadratul jumaa bu mag bi ñuy amal at mu nekk ñu jàpp ko aljuma le 18 octobre 2019 ca marché jeudi ba ca Géejawaay إله إلا الله jamiyatu département bu géejawaay ànd ak mbégte di leen oo ci troisième édition xadratu juma bu mag bi ñuy amal ca géejawaay yemook le 18 octobre 2019 ca marché jeudi bi ci géejawaay ci teewaayu cheikh Mouhamadul Amin cheikh Ibrahim Niass jamciyatu ansaaru diin naxnu ansaarullah département bu géejawaay ànd ak mbégte di ci oo bépp muqaddam ak taalibe fuñ mën ci nekk ci biir réew mi